asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Laayen Biir TV ñu ngi leen nuyu leen siyaar baax macha allah di ñëwaat yéen si ñaareelu ci seen jataayu daara yi ci ñaareelu jataayu bi muy jataay boo xam ne groupe bii di Laayen Biir ci islaam ak Laayen Biir TV ñoo koy def mooy waxtaan wax dañ koy jégle sëriñ daara yi ak jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci daara yi kon waxtaanu daara yi tey ñu ngi ciy ñëw sunu deuxième numéro ànd ceeg Oustaz Saliou Boussa macha allah. maanaam nag nekk fii ci Lagros maanaam diggante Lagros ak ñàgg bu fekkee da ngay dem ñàgg da ngaa génn ñàgg jëm Lagros mi ngi nekk ci sa loxol ndeyjoor macha allah kon seen émission jotaayu daara yi ak oustaz Saliou Boussa kon ñu ngi ñaan vidéo bi ngeen aimé ko tasaare ko te continuer abonnement yi ndax abonnement yi tamit am na ci solo lool mooy tax mbir mi di gën a tasaaroo macha allah. waaye dana tax seen bi émission yu mel nii mu koy mën a def direct incha allah kon mbokki Latyr TV ñu ngi ci mbokk yëpp macha allah ñu bi vidéo yi waaye partagé ko lien bi waaye continuer abonnement yi macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kon xam naa ñu ñëw ak yéen ci seen émission bi barakallahu fiikum wa jazakumullahu xayr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 mbokki jullit yi mbokki lislaam ñu ngi leen di nuyu am mbégte nag ñëw di leen yëgal sunu bésu alquran sunu bésu alquran bu mag boobu nga xam ne ñu ngi ko fas yéene amal fii ci ñàgg Lac Rose dimanche le 4 juillet ci école Abdullahi ibnu Mas'ud radiyallahu anhu di bés boo xam ne nag ki jiite liggéey bi ci daara ji di al Oustaz Saleh Bousso ak ñëpp ñu mu àndal ñu ngi ciy woo mbooleem jàngalekati alquran yi di ci woo soppee alquran waaye di ci woo ñëpp ñi nga xam ne am nañu wëllëre ak daara ji mooy ñi fa mos a jànge wala ñi fa seen mo njaboot mos a jànge di woo itam mbooleem association islamique ak képp koo xam ne alquran yitteel na la mbokk yi ma fàttali ko dimanche lay doon le 4 juillet commencé ko 9h ci suba fii ci bustaanul aarifin ci ñàggal ak rose ñu ngi woo mboolem jullit ñi ngir ñu ñëw ànd sargal alquran sargal ñooñ alquran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Layen TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen ñaanal jamm di ko ñaan sun bokk ñaan sun borom sant ala defal leen ko defal na ko di leen jaajëfal baax ci top gi ak deglu setan gi tay nag ñu ngi ñew ci sunu ñaarel jotaay ci sunu émission bi ñu tuddé jotaayu daara yi jotaayu daara yi ñu ci dal sëriñ daara yi ñuy waxtaane mbirum daara yi ak jafe-jafe yi ci nekk ndax ku wax daara wax jafe-jafe ndax dajale yi nit rek jafe-jafe la surtout ay gone ak la ne ci mbirum daara yi ak jafe-jafe yu bari daal ndax daara yi ñooy daanaka ku mawul ndey ci Sénégal bañ na ko ba sax nit ki bu bëggee wax bëgg def sax daanaka ci daara la koy jaar ndax suñu état bi joxuñu ko dañu war a jox population bi tamit gëdd a jox daara dëgg dëgg dëgg joxuñu ko ci kon nag euh, daara moom ku wax waxi jafe-jafe كنت نجي دال الاستاذ سالم غوسا استاذ سالم غوسا بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واه جريف بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نجي دال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم سيدي سيدي لا نيو بلا س di siyaare itam mbokk yi xam ñu ngi topp Live bi TV bi ci chaîne YouTube ñu leen di nuyu ñëpp di leen siyaare di leen ndokkeel macha allah ñu bëggoon a xam kan mooy Oustaz Saliou Bousso bisimilah euh, Oustaz euh, Saliou Bousso euh, daara la boo xam ne mu ngi juddoo Touba mën na itam màgge Touba wala bu yaroon mu yaroo Touba ak ci yeneen barab yàlla dogal tam mu jot a jàng alxuraan Touba Mbàkke gannaaw bi nga xam ne ñu ngi ci ay boo xam ne fekk leen ci waajur yi ba ci maam yi juddoo ci kër goo xam ne tam këru daara moo tax ñu soso itam ci daara bañ ne matal la jàng ñu daal di tàmbali ci daara ci biir kër gi te suñuy mag yoroon ko bañ ci jógee itam ki ñuy tuddee nga xam ne moom itam nit daara la woon yàlla dogal mu jël suñu yóbbu ñu ci daara yoo xam ne alxuraan rek mm-hmm. dañ fay jàng muy sëñ Saliou Mbacké mm-hmm. ibnu Xaadimu Rasuul ñu jàng ko alxuraan ba dulsiwaat lu misare ci sëñ daal bàyyi suulee xumma yàlla nañu ko yàlla fayal ñu dulsiwaat Tuubaa nag ñu yeggale ci suñu gannaaw bu ñu jàngee fa wàcc ci suñu mag tàmbaliwaat ko jàng fooxam ci sunu kilifa sunu mag sëñ Afia bi sunu taar mu yàlla dogal tam mu hmm. amaan ko jàngale ci xabal mu yàlla dogal ñu jóge nag hmm. ñëwaat laat njàng mi bésam hmm. jaar ndam biir ci hmm. mbir ba mujj génn hmm. itam gis na itam li nga xam ne moom lañu yàlla xeet muy suñu bëgg-bëgg muy jàng ak jàngale kon ñëwee itam ne daal ci soobu xam ne mën nañu wax ne deux mille deux mille un ba léegi ñu ngi fi di Ndakaaru ñu ngi suñu ci daara internat jàngale alxuraanul karim mm-hmm. loolu daal mooy suñu yëngu mm-hmm. euh, daara ji kañ ko sax bi nga ñëwee da ngaa ñëw sos daara ji wala da ñëw mm-hmm. ñëwoon ci yeneen daara di jàngale ba nga sos ak daara ji kañ nañ ko kañ nga ko sos fan la sosoo waaw jamono yi ñuy wax nii fan la nekk waaw bi ñëw euh, laaj njëkk bi ndax dañuy ñëw sos daara wala déedéet bu ñu ñëwee sosuñu daara ci saas ndax euh, deux mille dañu jógee moo tax ñu bis bi ñu ñëwee te ñu ñëw Dakar hmm. ànd ak suñu daara yi mag yi ñu fekkoon ñu yore internat hmm. ànd ak ñoom ci liggéey suñu hmm. wax sëñ Xaadim Njaay parcelle ñu nekk ak moom nekk ni boo xam ne wax yàlla doon nañ te te te bu rafet hmm. ba yàlla dogal hmm. jóge fa hmm. ñëw ànd ak itam ci liggéey bi diggante deux mille un deux euh, ànd moom ci liggéey moom tam macha allah ànd bu rafet boo xam ne euh, tekk nañu te te bu ba deux mille six moom sama lu barab ca ngaabu ba barab ba noppi ñu gis ne nag comme waajur yi bi ñu leen am na ñoo xam ne tàmm nañu ànd ak moom dem ngaabu mhm. ndax fenn solu wax solu si ñoom te doyloo nañ ko mhm. am ñoo xam ne xëy na ko waaye nag euh, bëgg nañ seen ñoom gën a jégle mhm. tàmm des ndakaaru moo tax nag euh, daara ji tam mu bàyyi fa mu bàyyi ñu fi ak benn benn ñu ko tàmbali woon a des ñu des ba 2006 maanaam kon dañuy wax na kon 2006 dañu tàmbali dañu sos daara ji kon gannaaw bi nga xam ne mu banque ñu nekk banqaas si daara am bi nga xam ne moom la solo nañ la sosoon ñun tam bi mu bàyyi ñu war ko wéyal mhm. ñu jël turóom duppi waat ko mhm. ko daal mosal it waaw faraxaw Dakar mhm. euh, nekk foofu nga xam ne fa la ko xam ne solo des fa nekk fa di ko wéyal jëmmi jamono comme kër gi ñu toog kër gi ñu toxuwaat ci 17. ci gën a sax ba ñu koy itam ay 2008 2000 nekk nag ba 2019. Euh, ñu fekk yàlla dogal na dañ doon luyee. waaw ñoo ko tudd baax nañu jàppalante ñoom ba ñu am mm-hmm. fii nekk nii tey nga xam fekk muy. li ñuy wax ñàgg lagros muy juróom duñ ci lagros bu gën a ñaari dañ ci lag dañ ci bi mm-hmm. euh, donc ñu romb mm-hmm. euh, barab bu ñu tudd ko bustaanul aarifiin foofu lañu ñu nekk mm-hmm. ña doog la ñuy tudd barab boo xam ne daara jokkee moom ndax ëllëg euh, dund ak ñàkk dund daara ji day wéy nekk daara ginnaaw bi ñu yàlla baax ñu ànd ak ñu jàpp ay mbokk jullit jàpp leen ci ba loolu sotti lañ toog si léegi moo tax léegi ñu nekk fii barab bii بس مستعمل فيه ما شاء الله daal ñoom moom ñu ngi ma sha Allah waaw jërëjëf Cheikh Sall ci présentation bi am na solo daara ji moom sosoo léegi mu 2006 ak mu ci 2011 wala mu 2021 parce que 15 ans am na ñaata nit ñoo fi moo ko leboon téere borom subhanahu wa taala waaw sëñ alhamdulilah yàlla moom dëgg baax na daara ji ba daara ji sosu hmm. sosoo ci daara Abdoulaye Moussa Diouf sëñ Awa Khady bi ñu ñëwee daara ji lañ fekkoon mooy hmm. at mu ne am lim dana moo ko la ci daara ji incha allah hmm. toog seen ak ñu sopp alxuraan ñëpp toog teew kilifa yi mokkal ñu jox leen seen diplôme Mm-hmm. kon at mu ne ab lim daana ko mokkale bu yàlla dogalee tam tam mm, mm, banqaas bi sosu mm-hmm. mm, sosu suñuy loxo ñu yor ko mm-hmm. moom itam loolu di ko wéy at mu ne am ñu mokk am lim bu mokkal booba fi ñu toll nii am lim boo xam ne ñu ngi koy waajal xam naa dañ si ñëw kon li fi mokk la gën moom xam naa ne tiimuñu liste bi nii nii waaye lu gàtt gàtt moom dana la mat ay ñetti téeméer ak juróom fukk di ñeent. Euh, ci euh, quinze ans yi nga wax ni moom boobaa léegi. Hmm. am ci ay ci ay góor ak ay jigéen. Hmm. ndax euh, daara bi fi ñu fekk nii. Hmm. daara yoo xam ne ay góor ñu fi jàngee. nag am am na bànqaas bu ay jigéen ñoo fa jàng. ñoo jàngale. man kon at mu daal dana am dundu fu mokkal boo xam ne. néew na lim bëgg yées waaw da koy ëpp lu bari la lekk alhamdulilah waaw hmm. ah, ñu bëggoon a xam daara yi yan jafe-jafe la ndax daara kat boo waxoo ay jafe-jafe hmm. yan xeeti jafe-jafe ngir li gën a ci daara ji waaw jafe-jafe sax moo ànd dañoo ànd hmm, ndax comme suñu borom dafa laqad xalaqna insaana fii kabad kon doomu aadama buy dund lu jafe-jafe si fànn bu muy mën a yëngu waaye buñ ñëwee ci daara moom am na ay jafe-jafe boppam ndax uh, doomu aadama ay mbiram moom dara woyofu si ndax uh, suñu borom subhanahu dafa teral doomu aadama wala xam ne karam naa ba nii aadama kon doomu aadama foor moo tax ay mbiram woyofut ku ne xam na ne foo dajalee ab lim ci ay njaboot mhm. bu ñu matee ñaar ñett jëm kaw rek mhm. rawatina mu ay tutànk bu mhm. ñàkk ay jafe-jafe di am te bëgg leen a wàññeek leen fii ak def leen lii yooyu yëpp su bëgg su su su su su fekkente ne daara su fekkente ne famille rek kër këru njaboot rek ak su njaboot rek mooy am jafe-jafe bëgg xale yi mm-hmm. di leen ak leen teg ci yoon mm-hmm. rawati bëgg defaat ñoom xam-xam mm-hmm. rawati na nga xam ne moom euh, bu bari masha allah lay uuf loolu dina am ay jafe-jafe dina am ay jafe du ñàkk ca na nga leen di mën a yore ba la tax ñu ñëw fa la tax daa ji sosu ñu man ku ci ne man la ca la ci yàlla cëral nga mën caa cëru loolu nag pour nga ci mañ woowu du ñàkk moom mooy jafe-jafe ndax niveau yi duñu tolloo jikko yi ñu àndaale du ñu bokk du nekk benn ñëpp fa ñuy famille yi sox ko itam du nekk benn su ko yëpp nag bu ñu dajee ah yow nga bëgg ci ñu bokk benn hmm. ah, objectif benn càkkutéef bu ñu sàkku ah kon foku yoon ba ngay mën jaar mhm. stratégie bi ngay mën tek mhm. ba loola mën nga mën am réussite ci loola mhm. gannaaw nimbul borom subhanahu wa taala loolu mom mën a xaw ci jafe te loolu dafay dafay dafay jëm ci walu njàng mi ak yar bi muy wala a dikkaat nag ci beneen jafé bi nga xamné mom moom itam jafé jafe matière ma lay doon manam ma dijen dañ ko mën wax nga xamné ne jëm ci walu dund baag nekk waay baag hmm. yi ci aju hmm. ndax ndax xam ne jamono ji dundal mbooloo yombut hmm. dundal mbooloo yombut boobu ngay yor luy mat ñaar téeméer wala lu ko jege ci benn barab leen dundal ci aña yor a ndékki ah dëkkal leen ñuy jëfandikoo ndox courant lépp macha allah loolu ku ne xam ne ni bés mag lay doon mag a mag lay doon boo xam ne ne bés bi nañ koy dundee sax ñu mm-hmm. bari ak nañ koy xalaate mm-hmm. mën naa wute mm-hmm. ak koy xalaate mën ndax dépense moom du woyof loolu ku nga xam ne dana am jafe-jafe donte dañuy wax ne internat la ñor wala ay daara moderne la ñor nga xam ne waajur wi ñëw di andi njabootam dafay am lu mu saatan daara war di ko participer ngir Mm-hmm. jafe-jafe boobu muy war am ci wàllu dund beeg nekk beeg yooyu mm-hmm. mën a wala mën a wàññeeku mm-hmm. loolu day am wala bu dee am itam tey buñ ne woon daara ji dugg ci weer wu ne da nga joxe masala ñu da nga wala wala lim bu ñu kat balaa sa dooma dugg da nga da nga d' accord fokk da nga ko buñ ko tëralee noonu itam ñëpp ñu ne ñëpp sa respect def itam du am jafe-jafe Imam am jafe-jafe ci wàllu nekkuwaay bi wala moom jafe-jafe ci wàllu dund bi hmm. wala waaye hmm. hmm. jafe bi dana jafe du mën a matal la ñuy soxla ci bi dund bañ bañ taamu dëkk ko dëkkuwaay bañ taamu waaye njàngal ko njàng mañ taamu équipe ba nga xam ne moo war a saytu loola loola loola du ma rawatina bi nga xam ne daara day barab social sa daara dafay doon barab nga xam ne ku euh, mel ne su ci ñëwee ñëw ne di kat ah doomu daara nitu daara ca gëm-gëmam mooy diine lislaam mm-hmm. doomam balay dem sa xam muy jàng te xam leen mm-hmm. alxuraan njëkk dugg ci bopp ku mel noonu su ñëwee tam ci loxo loxo jotul gannaaw mm-hmm. ah mënoon na kat fii lii am fokk def ko kon du nga gis koo ah lii kat taal bi lii la ku fi dugg si lii ngay war la ngir mhm. sa doom man fay nekk mhm. mu ne waaw war na mhm. ko dem ba ci biir man man daf ko dem ci biir man man ñàkk man man man situation la ko daal ba ba man man mu amoon woon man man ba ma nekkatu fa kooku itam yow xalaatoo naan ko comme mënatoo doom bi kaay jël ko ndax yow sa sa sa sa sa yitte du waajur bi mais xale bi mooy sa yitte te li ngay xool tam mooy mustaqbalam mooy awaniru xale bi moom ngay xool yow ndax kii ngay yor di ko di ko jàngal kat hmm. tey boo doon waajur kaay jël ko yóbbu mu hmm, hmm. bi taxaw ci mbedd bi loolu du avantage waajur yi nag mën naa mënul xale bi toog fi ngay nab nabi ci moom muy jéem ngeen bokk di jéem pour xale bi la mu war a xam mu xam bu ëllëg bu nekk magum jëm mu nekk responsable incha allah nekk ko am njariñ. Mhm. amal njariñ société bi. macha allah ku mel noonu lañ bëgg lañ bëgg a def. nag xool waajur bi am naa amut mën naa mën a def naa la mhm. bu xamee la ko war. Mhm. yàlla baaxee ko man di ko def. waaye daal alhamdulilah dana dana gën a yomb léegi. mais su ko xasul man su ko nanguwut wala mënu ko itam. te tàbbi na say loxo. da nga jaayanteeg borom subhanahu wa ba yow xale fenn mi nekk sa loxo. la ca war nga jëm la nga ca man suñu biir sàmmanteeg. xaw a ne ëllëg yow fi nga taxaw. Mm-hmm. moom moo fa mën a taxaw wala mu taxaw fi gën a kaay foofu. macha allah loolu léegi ndax jàngalekat yi am na association maanaam association boo a tënk. Mm-hmm. ndax kër réew réew moo xamante ni mm-hmm. daan ko waaye réew ñaari ku bëgg ndax bu nee daal wax jafe-jafe xaj na jafe-jafe yoo xam ne mën naa am parents d'élèves yi ñu koy amal waaye dafa am jafe-jafe xam ne yi ñu koy amal. nguur gi wala sax yeneen féete kaw yoyé hmm. kon dara baax ngeen am association hmm. ndax association am ngeen ko hmm. wala fek fekk bu ne am ngeen ko association bi nan la tuddu ak ndax association bi lan moy ay jubluwaayam moom waaw association bo xamné association moom bari nañu waaye association bo xamante bi mom pour wa daara la waaw so mom amna? Amna fi amna yu ci bopp lu ben lu ñaar du ñu nekk parcelle. amoon na station bu ñu tuddee woon station. Mhm. dem métropole mhm. nga xam ne station la boo xam ne. jàngal mhm. suñ daara yi nekkoon parcelle. noonu la bootoon. nekk naa ci membre. yaa dogal sax boobu bay jóge parcelle. Mm, maa maa yoroon euh, maa nekkoon maa ko jiite kon bokkoon nañ ci station. muy lu am njëriñ comme ni ko waxee ndax. ñu bokk jurwaay mm-hmm. war nañoo mën a ànd mm-hmm. ca lañ yor mm-hmm. ngir mën a doolente waaye association yooyu itam am na benn association bu amul muy fédération fédération nationale de méthode coranique de méthode nga xam ne association yi nga xam ne dafa ëmb ay jàngkat alxuraan nekk ci niveau national ci biir réew mi ñu am fédération boo xam ne moo leen lënkale ñu xam ne fédération boobu association boobu boo xam ne am na réservice moo see bokk loolu am na te itam ñu nga ca biir alhamdulilah am na itam benn association bu ñu wax damitam mustaqbal nga xam ne moom itam ay suñ daara la ñu am nga xam ne ñoom jàng ak jàng alxuraan mooy si ñitte ak jàppalante ci ba moom ma gën a mën a am tataw gën a mën a jëm kanam loolu itam maamul nañ ci alhamdulilah ak yeneen ak waaye kon daal association moom mi ngi am ci biir réew mi ndax bu njëkk yu bari dañ daan wax naan ah, xëy na état ba lay mën a jàppale daara yi foofu dañuy organisé ndax état mm-hmm. du jàppale euh, mm-hmm. du jëflante moom foofu mm-hmm. ci muy jëflante mooy mbooloo ñu organisé wu loolu nag li pay at am na alhamdulilah ndax fédération boobu ndax euh, association yi may may wax noonu dañu am ay récépissé bi dañuy am dañuy dañuy jokkoo ku kilifa yi nguur gi wax ba ñu ne judd na taxaw na nii ñu may leen autorisation ñu commencé def seen activité fédération bi def foofu la jaar am ñu sos fépp foofu la jaar bu ñu dem ci département yeeg euh, communal yeeg national yeeg ku ci nekk jokkoo autorité bu nekk euh, ñu xam membre du bureau yi nekk foofu ak seen ko santé ak yëpp activité yi def ñu ànd ak ñoom kon loolu taxaw na ci jàpp itam def naa ne waa réew association boobu ngeen taxawal comme ni nga ko waxee association bu ko taxawal moom lañ ko a a jaar. Mm-hmm. ba wàllu këyit reconnaître leen. Mm-hmm. waaye est ce que reconnaître reconnaître bi ñu la reconnaître ci wàllu këyit. Mm-hmm. est ce que nga ñëw ci wàllu terrain ndax gis ngeen ko maanaam sentir ngeen ne daal maanaam relation. mooy relation association bi maanaam association bu bu bu yi ak état bi nan la ndax mën nga relation boobu kii la daal. waaw xam naa relation la boo xam ne de wax dëgg mun ñu wax ne amul njariñ mm-hmm. mun wax tam ne njariñ li fës na lool lool lool mm-hmm. doonte ñàkkul ay njariñ mm-hmm. waaye xëy na dañu dem séntu bu ñu waxee loolu dañu doon séntu njariñ bi gën a fës muy lan comme dañu daan jàmbat ne ñun organisé bu ñu ba gis na kat ñun organisé wu nañu wala boog bu ñu organisé wu totalement itam mhm. nañu organisé kon ñoom itam war nañu gën a war nañu gën a fekk si ba ba mën a gën a jàppalante ñun bu jàppalante gën a fas bu ko defee organisation boobu gën a mhm. foofu laay foofu foofu laay foofu laay waxee mhm. dafa yàgg di yëngatu dem ci daara ci ay dikk yoo xam ne néew na muy ah. bu nekkee Fass jamono yi nga xam ne Abdoulaye Wade taxawaloon na station de Daara. Mhm. seen activité yu njëkk. Mhm. ñu ñëwoon nañu suñu daal ses yi. dafa ñun jotaay laaj ñu expliqué daal ak ñu dox yëpp. Mhm. ba gannaaw bi itam ñu doon ñu tëraloon seen i programme wane daal euh, war nañu tàmbali jàppante indaala. boobu ngi fàttaliku war naa man ñaari wala ñett yoo xam ne. dina am. am ndigal lu jóge ca kaw wàcc ci IA wala inspection bi bi nga xam ne moo moo nekk ci ci département bi pour ne nañu sélectionné quelque daara ci département bu ne nga xam ne état dafa war a am nu mu jëlante yooyu def naa def nañ ko ñaareel yoo xam ne bu ci nekk bu ñu tànn bu ñu bu ñu bu ñu laajee critères yi ñuy laaj ba ñu déposé ñun dañ suñ daanañ bokk ci ñu tànn ba IAE wala espèce waaye parce que yónni waa ñu benn këyit. Mhm. wala ñu ne seen daal daa sàng daa sàngam tànn nañ la. Mhm. waaye loolu mhm. doo ci gisaat dara da ngay toog noonu rek ba mu a foofu doo yëg benn yoon ana benn benn benn benn benn effet boobu bu mu am. waaw te yu mel noonu tam dafa laajoon muy am ay kii. muy am ay taxawaay bu ñu defee bu ñu defee démarche ba yëngu ne ah. ñun kat dañoo bëgg a euh, tàmbali jëfandikoo daara yi nangam ak ci anam euh, jàppale tamit anam sangam mm-hmm. ba indi seen ba tànn ba ñu am ne daara yi déposé comme mm-hmm. mënuñu jël yëpp ba jël nañu mm-hmm. suñu jëlee la ñu jël lañu la ñu wax wala la ñu yéene woon ñu fexe ba dafa wéyal loolu su defee fay loolu la bu fay loolu dana tax kat waa daal gën a yéene kat ñoom yëg nañu boole lañ ci ci ci ci ci mbir mi waaye su fekkee ne léeg-léeg def ay démarches ba kii te duñu mujj wéyal loola mm-hmm. yooyu itam dafay dafay dafay dafay xaw a wax dëgg la gis nañ ne état bi dañuy wax ne maanaam ci wàllu éducation bi dañuy gis ne ñoom dañ ne mm-hmm. masam tey 40 pour cent ci bit si Sénégal ñu ko jëmale ci wàllu njàng mm-hmm. ndax nag ci dëgg dëgg dëgg yéen sëriñ daara yi maanaam yéen ngeen 40 pour cent yooyu maanaam téeméer bu ne tey ci misaal ñeent fukkee jiyéen la jëm xam na juróom benn fukkee moo jëm ci wàllu santé jëm ci wàllu infrastructure jëm ci leneen mm-hmm. ndax yéen dëgg-dëgg na seen sëriñ daal yéen ngeen ko wala déet ndax ñeen ñi dañoo gis ne daal dafa mel ne xam ne yeneen côté yi mm-hmm. wala sax yeneen diine yi la éducation maanaam ci nguur gi li muy génn ci xaalis ñoom la gën a jëm ca daara yi te yéen dafa mel ne yéen tamit rôle état ngeen di suyee ngeen di liggéey ndax comme li ngay ñuy fii mm-hmm. nit ki mën naa yëkkati ñëw indi la doom mm-hmm. amul mais sañoo ko bañ a delloo mm-hmm. wala nit ki sax ba muy dugg sant woon nag yow doonte sax doon na ko def mais dem na bi ci biir ngànt dam mais amoo sañ-sañ te gis na ne loolu ngeen def noonu maanaam état moo ko waroon a def ndax yéen tamit 40 pour cent yi santé ngeen ko ak yow bu fekkoon ne am nga loo doon digal état tey maanaam conseil yoo leen jox wala orientation yoo leen jox seen diggante ak daara yi lan lay doon xam nga loolu la ñuy loolu la wax ne euh, biir si Sénégal. 40 mm-hmm. pour cent yi dafa dem ci njàng bi. te njàng bi ñu ko waxee moom. Mm-hmm. vraiment ñun mënuñ ci génn. Mm-hmm. ndax njàng alxuraan moom njàng diine ñun ay jullit lañ. ci réew côté ne sa devoir la. nga xam sa diine état nag. li fi nekk mooy jabate askan wi. ñi nga jaboote nag li nga xam ne seen i obligatoire la mm-hmm. da nga leen jàppale soo mun taxaw lépp da nga jàppale mm-hmm. kon état mm-hmm. njàngum diine ci Sénégal muy daarak lu moom dèjà war ba ma sëkk bay waaram ci meneen façon njàng moom noonu la war bay waaram ci njàng kon dañ koy jàppale dañ koy jàppale ñu ngi bi mais ñu ko jàppale ci wàllu emploi daara joo dem fekk fa ab lim boo xam ña fa di fa daan seen doole mm. weeru leen ko ñu leen dundal ko seen njaboot te ñooñu bu ñu yi mm. bu mu am <coughs> bu daara yi ay junni junni nit ñooy zone ñooy nekk nga xam te a bàyyi xel la bi des tam li daara yi ëmb ci ay doomi sénégalais ay xale gone Sénégal mm. yoo xamante ne ngi leen di leen jàngal. est-ce que ñoom bu ñu leen génne woon la jël ak mën nañ la kon ñun dañuy jàppalante ak ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. ci loo xamante ne bii. Mm-hmm. dafa leen waroon lépp ñoo ko waroon suñu defar la ndax lu ñu suñu ñu jéem a jaar suñu bopp waaye jéem a jaar suñu njaboot jéem a xam jéem a suñu njaboot ku te ne loolu sa defar la bi ci des itam jàng alxuraan itam di fardu kifaaya nga xam ne jàngal alxuraan di fàttali ko waaye nga xam ne su ko njëriñ tax mu wàcc ñu des waaye buñ julli ñëpp maasoon téye seen loxo nekk te leneen bàyyi jàngal alxuraan su lëg yow xew suñu borom dana ñu ko laaj waaw ndax innaa nahnu nazzalna dikra wa innaa lahu lahaafizuun kon teel a suñu borom dafay war a des la ko fi desal nag bu ayat bayyinaatun fii suduuri llaziina uutul ilm comme si dañ koy dañu mokkal di ko wattu la fokk ñu ñu ñu ñu saytu xale yi ngir ñu koy mën a mokkal loolu mën a ko su ko defee farlu boobu farata jooju noonu mën na teggal suñu kaw ñëpp kon loolu ñun ñu ngi jàppalante ak ñoom bu baax a baax a baax kon ñoom man jàpp naa ne mhm. euh, li ci des bi nga xamante ne bi dem ne bi nga xam ne comme ñu ngi wax toujours ba jàll euh, ñoom ñu ngi xam daara parce que suñu ñëpp suñu daara yi boobu dana indiqué déclaré leen euh, mën a jàngale kon état yi am na ah lépp lu am ci xew wala nangam activité bi da ngeen ko yëgal kon ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ko yëgal kon ñu ngi ñu ngi ak ñoom eh, def te nekk loo xam ne lu ñu leen nëbb eh, kon ci itam kon daal ñun li ñu war mooy ànd na jàppalante xam ne lépp ci éducation la bokk daara ban daara éducation ministre éducation mm-hmm. ñoo war am daara ji di saytu daara mm-hmm. di jàppalanteeg moom ni ñuy jàppalanteeg école yi. su ko defee liggéey bi mën a jëm kanam. waaw ndax xale bi nga yor bu jàng afaan jàng diine bu noppi lii ñuy soxla jàng ci école yi da koy jàng. li ëpp ñoom dañ koy jàng. man ko xam ko ni ko ñële di xamee wala ñu dàq leen. li soxla réew mi soxla ni ay cadre day génn ci daara yi. lu bare bare lu ëpp sax lay génn sax ci ci ci ci ci ci ci seen daara yi. loolu bu fekkente ne lañ soxla nit ñu jàng ñoom ay cadre manager lañ séeréer lañ soxla loolu daal ñu ngi koy ñu ngi koy génne ñu ngi koy produire kon jàpp nañ daal fexe ba toujours ñu ñoom ñuy xool gën a xool nuñ saytu suñu li ñu saytu suñu yittee ak ñuy lañ ñoom jàpp naa ne loolu jamono bu xëy na ña ngi cee jéem a ko taxaw waaye war nañ ko mën a gën a accéléré war nañu mën a gën a fësal jëmmal ñoom taxawaay boobu waaw xam na ne sa daal yaa ngi waaj a tari comme ni ñu koy wax kañ lay doon mm-hmm. ak boo mënee fàttali fu daara ji nekk mm-hmm. incha allah ak ñaata xale yi ñoo fi war a ñoo moo ko ren war ko dari ak heure heure bi maanaam ban heure lay commencé ak ban heure lay yem incha allah euh, ci laaj bi ñu doon laaj ci li jot a moo ko ci daara

ci limu vingt cinq personnes. dix ay góor ak. sept ay jigéen. ñu fas yéene sargal leen. Mm-hmm. seen kay waaye kanam itam ñi nga xam ne bëgg nañu alxuraan ñëpp. Mm-hmm. kon dañ ci woo ñëpp. Mm-hmm. incha allah war a tàmbali. dix heures incha allah. incha allah rabbi ñu nekk ci nag ba. tisbaar incha allah bu tisbaar jotee ñu mën a def yëfu ndaw ko ndaw yi mm-hmm. ñaanante mm-hmm. loolu nag euh, ñu ngi ci woon ñëpp mm-hmm. fii lañ koy defe nag ci daara bi muy ñàgg lagros soo ñëwee ba ñàgg génn na koy génn ñàgg jëm ci lag bi da daa daa gis sa rajo daa gis benn ci benn tànn tableau tableau tan bu xonq ñu bind euh, ci daara suñ saalim si bustaanul aarif yi ci ñàgg lagros euh, boo sa boo asee foofu rek boo diglu da nga ñàkk daal daal da nga bi sax moom la nga seen solo jàkk ji ak yëpp la kon daal bis la boo xamante ne bii bisu mhm. jullit ñi la mhm. kon jullit ñëpp ñëpp lañ ci woo lu mhm. euh, ci woo itam autorité yi euh, ndax euh, ñi ko war a ci ñoom ñëpp def nañ def nañu suñ képp la kàttan pour leen ko da ci séntu seen tawaay ndax itam comme nañ ko waxoon rek ñun ñoo ñoo ñoo ñoo bokk réew mi bokk seq itam liggéey bi ñu ñu feral ñu ñu faral leen. ñu faral leen faral ñu fa leen ñu faral leen fii. keroog nañu man di mbokk añu daay yi. incha allah kon daal ñu ngi woon ñëpp bis boobu daal incha allah. lan mooy say kàddu yi tëjee. waaw kàddu yi tëjee de xanaa sant yàlla borom subhanahu wa taala. ci xewal yi nag yi nga xam ne mu ñu ngi xewalal. dina la lot mën ko ñëw. ci xewal yooyu. mu bokk ci. xewal yooyu mu bokk ci. yàlla defal ñu ay jullit. yaroo ci kër goo xam ne kër yi ñu baax la dañ di alxuraan ca maam ya ba ci bàyyee yàlla itam baax ñu itam ñun itam ñu ñëwaat ndam na wàcc ci téeram bi yàlla itam boole ñoo ay jullit yu baax ñu jàppale ba tax mu def ba agsi fii ba daara ñu am barab boo xam ne daara ñu moo ko nekk fa di fa barab bi ñu ngi ci waa jullit ñi mhm. ñu gën ci dugal seen loxo ba mhm. maçon yi nga xam ne am na ko uh-huh. mën ko eggale ndax nekk nañ bi waaye liggéey bi des na bëri mhm. ndax soxla nañu mbaar mu ñu mën a jànge macha allah soxla nañu ay yoo xam ne xale yi mokkal dañ koy dem di ko jàngiwaat ñu xam ne franco jàngo majalis kon yooyu yëpp ñu ngi koy soxla kon sëriñ ñu lay sant di sant waa xalaat TV bi laayante biir maa ngi maa ngi jégalu maa ngi sant waa euh, site maa ngi sant seen YouTube bi mm-hmm. di laayante biir TV maa ngi leen di sant leen sargal mm-hmm. ak ñëpp ñu koy topp macha allah waaw jërëjëf ñaan leen tam ñu gën loolu tamit la mooy xale yi jàng rek mm-hmm. mokkal téere borom bi rek bay ñibbi léeg-léeg tamit yeen sëñ daara yi dama leen koy tooñee léeg-léeg da ngeen di sonn lol mhm. ci xalé ba mokal mhm. bu ngeen di ko joxaatee ñun wajur yi mhm. ñu duggal ko ci leneen ba boko ko ay at rek yeen mi ko doon jangal sax léeg-léeg da ngay xawa am lu la kii tuuti na bu ngeen amé ay barab bo xamne ku jang ba pare da nga mëna dem fo bu fekkee ne sey wajur mëna na ko mëna nga mëna jang a xam-xam ndax lol tamit mo téré bi ñoo ànd xam na dana tax li ngeen di def ci xalé yi mën ci ñoom ba li ngeen di formé ci réew mi ci ay cadre macha allah te ñun ñëpp gis na ko xam naa ko ku bëggut a gis boo defee loolu mën a yokk macha allah kon da yàlla na yàlla yombal kon mbokk yi nga dégg daara yi soxla na euh, kii soxla na mbaar waaye soxla na yenn classe yoo xam xale yi jàng bu mokkal danga ko mën a dem jàng continuer jàng xam-xam mm-hmm. waaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu